jërëjëf ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di leen sant itam ci jéego yi ngeen def ba ñëw fii pour leerlu li nga xam ne mu xew euh, li am mooy ñun mbootaay lañ goo xam ne dañoo àndandoo di liggéey ci lislaam ay boromi xam-xam jiite ko yoo xam ne seen yitte mooy jàng ak jàngale ak yar ndaw ñi dale ko ci jàngale alquranul karim yéeg ba ci ay université sax yoo xam ne dañ fay tàggat ndaw ñi di leen yar ci mokkal alxuraan di leen yar itam ci dund seen diina ci diggu doomu tooñuñu kenn xasuñu kenn ŋaañuwuñu kenn kilifa yi nga xam ne ñoo jiite association bi di def ay waxtaan ci mbooleem euh, goxi réew mi bokkul ci seen méthode sax ñuy wax di tudd ay nit wala ñuy tudd ay dëkk wala ñuy tudd doxalinu kenn li nga xam ne mooy seen mission mooy jàngale li ñëw ci alquran li ñëw ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yar ci ndaw ñi nekk ca loola jiite ko itam di ko jëfe dem nañu nag ba jamono kilifa génn def déclaration wax ay wax ne ñoom ñoo koy wax wala ñoom ñoo koy def te loolu du seeni wax loolu itam du seeni jëf kilifa googu déclaré ne lu ñu gis moom la ak ñi nga xam ne ñoom la àndal loolu bañ ko déggee ñun ci association Daaru Istiqaama jël nañ ci suñu matuwaay mooy def déclaration comme déclaration la woon ñu def déclaration bu leeral suñu taxawaay ak taxawaayu kilifa yooyu ci seen jàng ak seen jàngale ak seen doxalin ci wàllu yar ak wàllu formation loolu bañ ko defee ay fan yu néew lañ ci teg ñu jot ay message yu leer nañ yoo xam ne dafa wane ne waaj nañu pour songu si kilifa yi yenn ci kër kilifa yi nga xam ne ñoom ñooy suñu njiit nekk ci yoonu jàngale woowu jiituñu ci diñ ci tàggat itam ah, ba loolu ñun ay sénégalais lañ yu dëkk ci réew mi li sénégalais yëpp am ci réew mi ñu am ko fi muy sañ fay dund euh, dund fi tam li nga xam ne moo ñu convaincre ci diine nekk ci loolu tooñu ñu kenn menacé wuñ lu keneen nekk itam waaye li nga xam ne moom la ñu gëm ci la ñu nekk ci loolu la ñu la ñuy jàngale ci loolu itam la ñuy kii ah réew mi nag dafa am yoon moo tax ñu yëgal autorité yi li nga xam ne moo jóge faneen ñëw ci ñun ci ay kàddu alhamdulilah boobu ba léegi autorités yi jël nañ ci taxawaay yañ ci war a yañ ci war a def ci sécuriser eh, jumtuwaay yi ak kër yi nga xam ne moom la ñu ciblé woon euh, booba ba léegi itam ak dal mi ngi amandi gisuñu benn menace boo xam ne jot na yegg si ci ñun alhamdulilah waaye it su fekkoon autorités yi lañ ci war a taxawee taxawuñ ci itam ba ay song di ñëw di ñu fekk ci suñu biiri kër suñu biiri kër yi nag wax dëgg yàlla ñoo ko yilif te nit du seetaan bañ fekk ko ci biir këram di ko attaqué mu croisé le bras ay loxoom toog ne rek nañ nañ def ci man lu ma soob loolu alhamdulilah yegguñ fa ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax di sant itam autorités yi boobu ba léegi ci taxawaay yi nga xam ne am nañu ko ci mbir mi waaye di yëgal sénégalais yëpp daal ne ñun suñu mbir mooy jàng ak jàngale ak yar ci ni ko yàlla subhanahu wa taala jàngalee ci téeréem bi yonente bi alayhi salaatu salaam doon ko doxalee noonu xasuñu kenn ŋàññiwuñu kenn eh, saboote wuñu fi kenn itam li nga xam ne nag moo ñu convaincre ci diine ca loolu la ñu nekk di dund waaw euh, Abdou Salam Lo chef du village su Ngabou euh, ñoo ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp euh, di wax ne yii xew nag yu bette la ndax defoon nañ ne du agsi fii fii nag jàmm rek lañ fiy woote ak salaam ndax moom lañ xam Cheikh Ibrahim Khalil Lo mi nga xam ne moo yor daara ji du fi gan ci kër gii la juddoo kër gii moo nekkoon kër waaye waajuram di doomi Serigne Ibrahima Lo mii rek Serigne Amsatou Lo mi nga xam ne ñoo sañ ci dëkk bi waaye juróom juddoo fi moom mi mu juddoo fi donc kon ngaabu la dëkk dookul ab doxandéem boo xam ne dafa jóge ci àll bi ñëwut a sañ kon fii la dëkk eh, ñun ñi dëkk ak moom it wax dëgg yàlla bi ko xamee ba léegi jàng ak jàngale ci lañ ko xam ak jàmm ak salaam mësuñoo gis dara loo xam ne aw ay law wala violence bu jógee ci moom mësul mësul am jàng mi it ñu baree bari seeni doom dañ fiy ñëw di fi mokkal alxuraan man mii ci laa am na sëti sëriñ Tuubaa yoo xam ne nii fii lañ mokkal alxuraan ba dem mën naa la cee tuddal ñu baree bari loolu nag lay def di woo ñëpp nag ci calme ak dal parce que violence moom du jur lu dul violence te bu xasee tàmbali xamees na fu muy tàmbali mais fu muy yem kenn xamu ko donc ay responsable di ay kilifa di boroomi xam-xam luñ mënta regle ci waxtaan ci dialogue foog naa violence du ko régler te yenn saa yi danga dugg ci mbir xeeb ko mais. dana àgg foo xam ne su doon cassette boo mën a arriéraat doo ko defale noonu kon nag damay ñaan ñëpp delloo si xel yi waxtaan ci jàmm ak salaam loolu dong moo fi xaj leneen lu mu doon nag lu ñuy tal lu nekk dañuy am jàmm ba noppi loolu daal ci kàddu yi gàtt loolu laa ne woon daa ko ci sàmm fekkee beneen question